man nag ngeen jéggal ma waxi parrainage wax parce que depuis deux mille dix-neuf maa ngi wax ci parrainage Abdourahmane maa ngi koy wax léegi ne ko lettre bi ñu introduire ci seen fichier deux mille dix-neuf lañ ma ko def këyit yaa ngi fii ba tey dama ko garder souvenir en 2019 su ma ay jarbaat doomi maam Ndiar ñu nga ndar ca Roqu Jinne dañ leen wax ne ñii c'est des non électeurs te pourtant ci élection ba ñoom dem nañu voté ci des non électeurs Des gens qui ne sont pas sur le fichier, vous en avez 10 000, 10 000. En 2022, j'en avais 19 000. xanaa kon maa gën a dee lii monsieur li expliqué léegi ci discriminant bi da ngay am ku mel ni buur ñu ne la buur xam nga buur njoolu un mètre soixante sept la ñu ne la taille non conforme nga xool pièce d'identité bi ñu def ci 1 mètre 67 nga dellu ci ñoom liñ ñu la baaxul ñu bindal la 1 mètre 67 et pourtant wax naa ci fépp def naa ay conférence de presse j'ai vu mes amis de Pastef faire une démonstration ma ne mouche bi mouche bi piqué donc c'est juste pour dire ñi ñu am leen jëluñu nit ñi au sérieux et la preuve boo xoolee quand je vois la presse vous êtes aujourd'hui au moins cent cinquante à vous déplacer yéen ñi vous de la presse la Macky Sall toroxal bërki démb ci kanamu àdduna pour wan ne ñun suñu presse bu ñu daal ñun suñu presse à la limite ay comédiens la je vous félicite pour le travail que vous êtes en train de faire. les mots de Migui Maram Ndiaye résonnent encore dans mes oreilles Migui Maram moo jiite les jeunes reporters fii ngeen nekk ci siège u Gëm Sa il est venu me voir lors d'une interview il a une dizaine de jours li mu ma wax ci les ngeen di braver le soleil di braver le vent ngeen di nekk ci métit la presse sénégalaise dañ leen war a remercier la presse sénégalaise dañ leen war a féliciter et je suis fier de vous parce que je me réclame de vous je suis fier de vous parce que je sais que vous êtes en train de faire un travail remarquable dans le sens de conscientiser les Sénégalais mais forger leen pour ñu am benn conscience bu am solo boo xam ne kenn ku nekk sa apport en tant que citoyen di ko mën a doxal ni mu waree un état stratège un état intelligent fortifie sa presse un état intelligent accompagne la presse mais un état buy couper internet du état buy dimbali presse kon je voulais d'abord à l'entente de mes propos remercier leen mais féliciter leen à côté de Bour Saloum bu leen di sànni ay xeer mérité wu j'encourage également Babacar Fall de RFM Babacar Fall de Futur Média, il est courageux. C'est un jeune que j'ai encadré quand j'étais à Walfadjri. man son encadreur stage am bu mu njëkk a def Walfadjri. C'est un jeune boo xam ne il est pétri de talent et c'est un jeune ñoom mën nañu xarab la presse mais taxawaay bi ngeen taxawoon démb tey jii ngeen ko gën a taxaw j'en profite pour faire un clin d'œil parce que ci jeunes reporters yi les journalistes en rien contre les hommes mais je sais que jigéen ñi ñoom ngóone ñoo gën a dégourdi boo leen gisee ci terrain bi métit yi dañu koy seq bokk ko ak góor yi pourquoi day ça à trois mois mais yóbbu leen ko à six mois yóbbu ko à six dinaa ci góorgóorlu ba ci groupe bi ma nekk muy Boyko Corporation ñu góorgóorlu ba fexe ba yaatal ko ba ci juróom-benn téeméeri jigéen ñi nekk ci biir groupe bi ñu mën ci bénéficier mais incha allah bu ñu yeggee ci le 20 bu ñu defee la publication de la liste définitive ki ñu natt ànd moom xeexkat la nee ko ñi ñuy xeexal moom docteur Baba euh, euh, Abdourahmane ma ne ko ñi ñuy xeexal li ñu def nii tënk nañu ko yàgg tënk nañu ko ñii duma bàyyi ma fen bi ñu ñëwee def seen premier tour ne nu régularisation ñu ngi nii taxaw dama ne leen bu leen dem ñu ne ma lu tax ma ne leen la décision est prise du ma ci def ci sama dërëm. ma ne ma ne leen du ma ci def sama un franc. la décision elle est déjà prise. on sera éliminé. et on sera éliminé sur des doublons. moom mii loolu la. j'ai insisté pour continuer pour wan. ma ne ko on sera éliminé sur des doublons. dañu am ay nit ñu ñu jàkkaarloo ñoo xam ne amuñu élégance. Bougane Abdourahmane Mimi ñu ngi ci terrain bi liggéey nañu ñaq nañu góorgóorlu nañu jóge nga dem Bankaane dem Mangarungu jóge nga Nioro Alassane Tall nga dem ba Ségré Gata mais ñi nga jàkkaar loolu li leen intéressé c'est de faire comprendre aux Sénégalais ñoom li ñu bëgg ñu comprendre heureusement que nous avons des intellectuels éclairés yoo xam ne lu ci mën a doon am nañu capacité de recul et d' analyse léegi bi ma waxee na ñu def recours dama ne ko jàmbaar man recours man depuis 2019 maa ngi recours ça veut pas dire que je ne suis pas résilient mais c' est parce que dama xam ñi may jëflanteel ce que Macky Sall n'a pas compris mooy Bougane président du objectif principal Bougane président objectif secondaire parce que Bougane li ko intéressé objectif first bi mooy naka la ñu mën a def ba soppi dundinu sénégalais et loolu rek moo ma intéressé moo tax ma su ma wax ci wàllu pare naa parce que doo ci wax lu ci Abdourahmane waxul doo ci wax lu ci Mimi Touré mii waxul yenn saa yi nga dégg ñu ne non mais Mimi Touré ci ñoom la bokkoon ma ne bàyyi leen seen waxu caaxaan waxi caaxaan mooy moom ba mu demee ba gis ni lii ci njublang la wéeru dafa dellu ginnaaw man na képp ku dellu ginnaaw fekk si ma ci li may xeex képp ku dellu ginnaaw fekk si ma ci li may xeex jël xeer ngir yót ko ñële damay ànd ak yow. C'est eh, y a une délégation du ministre Ali Ngouille Ndiaye maa koy remercier parce que gis nga nit du ci alal rek ngay générer nit da ngay générer ci xam-xam bi rejet yi amee. je sais que man bokk naa ci candidat yi nga xam ne woo na leen laaj leen seen requête nga jox ko fichier bi mu expliquer le tamit comment procéder à l'analyse scientifique de tes doublons ou de tes rejets xam nga loolu générosité la c'est le lieu de le remercier maa ngi koy sant ngeen yeggaleel ma ko yéen délégation mais leneen li am solo bi ma déggee ñu ne recalé nañu ma ne mais loolu garaawul Guèye mii du ma bàyyi ma fekk au moins pendant quarante huit heures soixante dix voire quatre vingt jeunes parce que bi may wax ne defaral leen ay sandwich je crois bi ñu compté quatre vingt huit la ñu woon à un moment ñu fanaan yendu fanaanaa nekk ci jafe-jafe am liggéey bu am solo bi ñu def en deux jours parce que li Abdourahmane wax léegi ñun aussi dañ ne base bi ñu yore woon comme am nañu entre quarante huit et soixante quatre pour cent de doublon base boobu bu ñu ko laalati nañu wutiwaat beneen base en deux jours vous vous êtes mobilisés mm-hmm. on a reçu plus de quatre vingt mille parrains fu nekk ñi ñi di fa jógee pare new moo woon am mottali kaay ma mottali la nangam sangam dañu dem ba nit ñi nekk fii ñu submergé et li yàlla di def xam nga nit moom àdduna booy baax baaxal rek bi ma demee ba gis ne am nañu quatre-vingt mille et quelque te ñun vingt-neuf mille la ñu soxla woon le dimanche matin am ñu ma doon sollicité pour ñu jox leen ay parrainage ma woo leen ñoom ñii ne leen demal ci diw ci diw ak diw na yónnee diw bu indee clé ngeen jox ko parrainage mais ci ñooñu am na ñaar ñu jàll. oui j'en c'est pas parce que dama ci am xol bu metti déedéet yàlla xam na ne xol bu sell laa ko def mais c'est juste pour faire comprendre aux Sénégalais que vous yan façon yi nit ñoo leen jiite. ay mag yoo xam ne dara intéressé wu leen lu dul seen alal li ñu am seen mbokk ak la ñu mën mos ci réew mi naka lañ mun mën a def ba jalgati réew mi j'en parle parce que j'ai le cœur meurtri j'en parle parce que ces jeunes bi ma leen xoolee quand on a annoncé la nouvelle boobu man maa ngi lu ñu ma doon jox ci buntu bureau bi après si la génn ñu ne ma ah la nouvelle est ma gis leen ñuy jooy et suma xol metti automatiquement j'ai fait une vidéo pour dire aux Sénégalais que le combat ne fait que jii dañu teewaayu Mimi ak Abdourahmane ak Malick ak Ben ak ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañu Aly Ngouille Ndiaye Assane Diouf. dama leen di invité il faut ngeen gëm ne kii fi nekk du xeex ak moom du une bataille juridique moo ñu ci génn docteur maa la koy wax léegi ci waxtaan bi ma ne la notre problème c'est que le conseil constitutionnel est acteur c'est des acteurs du processus donc ñoom du ñu dellu ginnaaw mukk di weddi seen wax ce qu'il faut c'est de nous organiser

le Sénégal. Libérer ces prisonniers politiques. Je pense à mes frères de Pastef. En, premier, je pense à Ousmane Sonko. Le combat, c'est de tout faire pour que moom mu mun a génn fa mu nekk. wax naa leen ko yéen waa Gëm sa bopp waru leen xuloo xam nga lu da ngeen daanu mel ni yéen élimination victorieuse que vous avez dañu fexe ba seppi leen mais seppi boobu ñu leen seppi tey jii sénégalais yi ñooy seen porte-parole sénégalais yi ñoom ñoo leen di défendre sénégalais yi xam nañu ne non Bougane li mu liggéey non non non xa xajul ci ñenn ñi ñu ne jàll nañ. yow la ñu gëm yow la ñu gëm ñun yow la ñu gëm gëm ñu dama leen di invité ci ñu gën a liggéeyaat yàlla bu dogalee da ngay ko Macky ba ko yàlla di jox pouvoir xamul nu mu ko ko joxe gis nga bi mu koy foqar ci ci moom fu ngeen ko seen ci mer la nekk ak sa netra munu ci dara jeex na c'est fini alors loolu boo gëmul da jàpp ne nit ñi ñoo la def li daal ci sa kaw alors que yàlla moo doxale noonu retroussons-nous les manches serrez la ceinture et travaillons davantage ma ne bu bu matee bu yombee baaxul mais bu matee rek day yomb insha allah jàpp leen ne dafa matagul rek loolu nag dañuy continuer liggéey bi et sous la houlette de son excellence madame Mimi maa ngi leen di dellu di leen tàllal loxo kii fi nekk kat am na dëgër bopp dëgër bopp boo xam ne li mu bëgg def yëpp mi ngi koy def tout à benn benn waaye nee na ma tibb nga tànk ba waa ji teggi tànk kon ténacité boobu ñu amoon ba moom mu dellu ginnaaw ci troisième mandat parce que defu ko ci coobare tout le monde sait que ko ci coobare man xam naa ne li ñu ma baalul bokk na ci carton rouge carton rouge li ma Macky mënul baal bokk na ci tibb tànk li ma Macky mënul baal bokk na ci tiiñal Macky li ma Macky mënul baal bokk na ci coow bi nga xam ne coowal suufu université la li ma Macky mënul baal bokk na ci huit millions de mètres carrés yi nga xam ne jël nañu ko ci littoral li ma Macky mënul baal bokk na ci question ya ma ko posé woon ci Covid 19 te ba sànq ba tey amul réponse li nga xam ne moom la ma mënul baal mooy jamaa yi ma wax ne mi ngi ci réew mi li nga xam ne mënu ma ko baal mooy na muy def li ñu ma mënul baal mooy li ma féete ak askan li ñu ma mënul baal mooy li ma ànd ak mécanicien yi ci VDN li ñu ma mënul baal mooy li ma ànd ak li ñu ma mënul baal mooy li ma ànd ak commerçant wu Sandaga yi nga xam ne soppi nañu leen ay yalwankat li baykat yi ma àndal te dégg ngeen ña nekk Touba ñuy wax taxe bi ñu dolli ci gerte li ñu ma mënul baal mooy troisième mandat bi ma xeex ak waa opposition bi ba ñu waaye nag ma leen di wax daj dëpp gi daj dëpp gi mooy campagne électorale bii ñuy def non du ñu ci doon du ñu ci doon t-shirt grand boubou bu mat lañ ciy doon. ni ñu ko defe woon ci législative yi noonu la koy defewaat. ñu de. ni ngeen taxawe woon noonu ngeen di taxawewaat. waaye dama leen di wax ne laata ñu yegg ci publication résultat comme suñuy stratégie ñoo leen jaaxal. il faut nag ñu defaat caravane comme bi ñu def caravane diri cin léegi nag da ngeen di ñëw ñu àndandoo def caravane. waaw doggali doggali bennoo. caravane dem fekk nit ñi ci seen liggéeyukaay caravane doggali bennoo dina nu ànd ak yéen fépp ci réew mi waxtaan ak nit ñi. dëgg jot na. wax leen lan moo tax dëgg-dëgg woteel Amadou Ba. musiba ci réew. danañ leen wax naka la Macky Sall bëgg continuer l' esprit nekk ko bando. du fi am. nekk ko bando. amul njariñ. et aujourd'hui les populations du Fouta ñoo gën a sonn ñëpp parce que dañu leen a nax tey jii ñu ngi ci seen i jafe-jafe te loolu kenn waru ci seetaan kenn warul jàkkaarloo ak ñoom ñi nga xam ne jàpp nañu ci seenu féete wala ci seenu ànd ak moom ñu leen di nax nan leen nedd ko ban sénégalais yi dootuñu ko nangu. ñoo bañ on est déterminé. yéen ñëpp encore une fois docteur excellence Mimi nañu àndandoo. su ngeen fi buggee jëli Macky Sall ak ñi mu àndal nañu doon benn doon benn say. lu ngeen ko deful fii defu leen ko danañu def li ñu bëgg parce que boo xoolee stratégie bi ku xool ñi ñu validé. man waxuma ne dafa waxuma kenn. ñëpp boo xoolee ñi ñu validé nga xam ne stratégie bi stratégie bu leer la c'est de disperser les forces de l'opposition tas ko ba mu tas tasal pour que moom ñi mu àndal bu ñu yeggee ci deuxième tour ñu mën koo nattal waaye nag ah sénégalais yi teg nañ leen bët de yéen ñii il faut pas décevoir les Sénégalais Sénégal méritoo na lu ëpp lii ñu ko bëgg defal en tout cas xam leen ne je reste déterminé je suis à votre disposition man seen rakk laa xëy na maa gën a ci groupe bi mais jàpp leen ne détermination bi nekk ci man bu ma waroon dem ba desee dal lu carax donc danaa sol benn carax boobu. yaa am jom jàkkaarloo ak ñoom. yaa am jom. suñuy doom jar nañu ko. Sénégalais yi jar nañu ko. maa ngi leen di sant bu baax ci ñëw bi nga xam ne ñëw ngeen ko donc on reste à la disposition de la la disposition de la presse si vous avez deux ou trois questions rapidement